ngir yàlla war a suul yi billet yi fan la nekk ngir yàlla génne leen jël billet yu jox ko booy ngir yàlla war a suul yi ñun sonn nañ ci football sénégalais lii bu naree continuer xam nga amoon na fi nar a bu naree continuer non du ma leen ko nëbb salaamaaleykum Sénégal nuyu nañ leen ko ci nekk seen seen sant lii bu naree continuer wallaahi lazim football Sénégal day soox xam nga maa fi doon taxaw avant 2021 di kaas ne football Sénégal dina jëm ca kanam incha allah di may gars yi confiance ñu gën di bëgg football bi di ko supporter. mais wallahi bu ma leen waxee lii rek gëm leen ma lii bu football bi bu ñu ci naree rax affaire de politique bu ñu ko politiser yàlla xam na ne football bi day daanu ba ndërmeelu li dal Côte d'Ivoire jamono ji jommuñu xam ngeen situation Côte d'Ivoire fi mu toll ci wàllu football jommuñu ñun jëm lañ ko ñu ngi bëgg di kii mais ngir yàlla war a suuli booy tey jii man maa ci gën a sonn ku ne gi ñëw sunu kër fu ne lañ may wooyee di ma laaj ay billet te man jaayuma billet booy tey dañ ne tey jii lan lañ ne lañuy jaay billet dix heures booy yi dem man am naa ci preuve bu leer nañ dix heures nga dem stade Ngalandou Diouf ñu ne la billet deux mille yi jeex na mais booy bu am dix huit ans boo xam ne liggéeyam demewul noonu fan la jëndee billet dix mille billet dix mille kese moo des mais yeneen fan la jaar cinquante mille places match la boo xam ne nii booy dañuy rêve gis seeni idole rêve gis Sadio Mané gànn ak ñoom seen mais tey jii ñu war a ñëw bëgg jënd billet ñu naan leen ay billet dix mil moo ci des yeneen billet deux mille fan la jaar tey jii lan tey tey lañ ne la ñuy jaay billet tey booy dem dix heures. ñoo la billet yi jeex na mais ba kañ yeneen secteur nga fay dem pour yeneen point de vente yi ñoo la billet yi 2000 yi jeex na 10 rek moo des mais fan la jaar ngir yàlla war a suuli président Augustin Senghor ba ngay génn di def communiqué dine sax li daan am daanul am maanaam yenn politiciens yi daan jël billet ñu leen ko doon jox jaay ñuy may billet ñoo xam ne nii dalay wër ne sax mën nañ ko jëndal seen bopp loolu dootul am amoon naa confiance que ni non vraiment benn boy du jàmbat mais tey jii ba ma jotaatee mii lii sama xol dafa jeex vraiment au moins yéen ngeen rus ñu si ñun nga xam ne ne matin midi soir dañoo sacrifier suñu temps def ko ci football sénégalais pour mu jëm kanam di jël ay information xibaar matin midi soir di ko fexe jàlle sénégalais ngir ñu gën a am amour ci football sénégalais mais lii daf ñuy découragé loo ñun ndaw ñi nga xam ne ñu ngi jaayante di def suñu sacrifier suñu xaalis suñu temps kenn fayuñu fédération fayuñu benn kenn fayuñu ñooy jël suñu xaalis suñu lépp di ko sacrifier ci football sénégalais mais au moins ngeen rus ñun ñi nga xam ne ñu ngi jaayante pour football sénégalais s'il vous plaît ngir yàlla bu leen ñu yàqal li ñu am mooy football bi buñ ci raxee politique rek leneen lay nduru génne leen billet jox booy ñu savouré dund li nga xam ne mooy seen amour maanaam football bi booba léegi ñu may woo di dem ci point de vente yi ku ne ñëw sama gàlle booba léegi fan la billet yi nekk dem nañ point de vente bu ne ñu ne 2000 yi jeex na mais ngir yàlla war a suul yërëm leen booy yi te yàlla tax booy yoruñu quoi bi bi dix mille deux lañ mënoon jënd yéen a ngi woo leen ñu ñëw mais bàyyi leen ñu jënd ci jàmm ak salaam ngir yàlla bu dee billet yi dañ ko téye wala soit daam ñeneen ñu ko jox ñu ko mérité wul nan ko bàyyi booy kii lan laay ragal ñu dem ba stade booy amuñu billet bëgg a dem dem stade foofu coow li jaxasoo et loolu yàq image football Sénégal ak gan yi ñuy fekk si leneen loolu mënoon na cee bañ a ñàkk mën na cee bañ a ñàkk mën na cee ñàkk vraiment. yooyu yëpp ñu koy sóoraale s'il vous plaît génne leen billets jox ko booy ñu assister benn benn jour la quoi benn fête la booy war koo savourer après coupe d'Afrique bi match yi dañ ko war di football stade bi moom lañu am di seetaan joueurs yi di bëgg mais bu ngeen booy yi war a dem seetaan ñi nga xam ne ñuy dund football bi bu ñu demul ñen ñoo fay dem ñenn ñi tàccu rek lañ fa nekkee joueurs yi kenn du leen supporter kenn du yoo s'il vous plaît jàppale leen ñu waaye ñun sonn nañ ci football sénégalais quoi chaque jour même la ñuy kaas. xam nga commencé nañ ko fi lii bu continuer leneen ngeen di gisati état bi ngeen gisee may waxee nii mosoo leen koo gis s'il vous plaît bëgguma football sénégalais suuxe moment yi ñuy dund te mu neex ci football sénégalais dañoo bëgg mu continuer mais avec ça dinaa leen ko waatal wallahi azim bu continuer xaw ma nag bëgg ngeen football bi avancer ou pas yéen suñu dirigeant bu continuer football day suuxe dem ba tàlli ñareet s'il vous plaît di jégalu gars bu wér a wér lii laa ci mënoon quoi pour ñi may laaj bii man man man jaay ma billet xaw ma fan la billet yi nekk wallahi azim xaw ma fan la billet nekk boobu ba léegi booy ñu ngi ñëw sama kër matin midi soir mais c'est Morning. والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Bye. moom seen yaay dañ kontaan vraiment loolu nag leen bu baax baax si yaa tuur macha allah. Santander.